salaamaaleykum monsieur la gouvernement madame la mairie na ngeen def naka yitte yi waaye yéen ci jàmm bu baax naka coono yi ah soo leen ma gisee sama kanam gii ni mel ngeen xam na mer laa def ba mer yam <laughs> walla asim mer naa leen trop monsieur le gouvernement madame la mairie dangeen fekk ndaw lu nekk Sénégal di daan dooleem nekk ndaw mënoon a jël gaal yi dem jëlu ko mu toog mënoon a sàcc sàccul toog mënoon a agressé defu ko mu toog jël dignitéem ngoram nekk góor yàlla piir nekk taalibe bàyyi fi loolu yépp ma sita nga xam ne mën na ko amee xaalis ñu yomb nu ne mu décidé na day jaay añ ñu koy wax chef tala nekk fii nit ñu bëri dem di fa lekk chaque jour mu xam ne si jël courage am à deux mains fas yéene fexe créer ay emploi liggéey def ci réew di jaay añ pris de quinze livreur di fa nekk di ko livreur añ chaque jour maanaam taneel nañu ñu bëree bëri ñoo xam ne ñu ngi ci gouvernement bi tey jii yori milliards ndax créé wuñ emploi moom mu créé loolu yëpp ci emploi bref talaax di xuslu di jaay añ ba presque ñëpp xam ko léegi si ci jaay añ ngeen commencé di ko xoqtal xoqtal nag mënul commencé mënul weesu ñëw fekk nit ki nekk ci ay conditions yu baax ngeen imposé ku li ñu koy imposé ba pare wutal bâche pour que say client nekk à l'aise nekk ci sécurité mu wut deux cent mille jël deux cent mille francs sacrifié ko créé ci bâche wut bâche bu ngande ngay ñëw xëy suba un bon jour rek ñëw daaneel place bi yóbbu table yi na ko fii dootoo fi liggéey jëlal gaal yi dem yéen ngeen ko wax yéen ko ko wax indirectement jël baasam xotti jël paaka dugal ci biir baas bu xottee ko nu mu leen neexee waa mais monsieur le président balaa maa ñëw sax ci le biir du sujet dama leen di fàttali benn chose lu ngeen xamul il y a même pas 48 heures su suis allé en ville man ak sama benn cousine ñu jënd kokk yooyu pël Fuuta yi di jaay ak si ci pël Fuuta bi mi ngi ci place de l'indépendance fa mu nekk dèjà set na yéen a ko ko baleel ba mu set wecc moom pël Fuuta bi fa mu nekk leer na ay làmp ngeen fa def ba mu leer nañ fa mu nekk conditions yi muy jaayee wax dëgg yàlla conditions yu exceptionnelles la nekk parce que nit ñi fa la ñuy dem guddi gi féexlu ak tàngaay beeg yëpp maanaam yéen lépp lu mu soxla ci condition pour mën a liggéey pël Fuuta boobu jóge Guinée teg jox ngeen ko teg ngeen ko ci condition yooyu noonu ba mu mën a am lu mu mën a am ci réew mi bi ma ñëwee li ma ko njëkk laaj mooy ku baax ndax am nga poubelle na ma non non <laughs> wallaay asi ma jël sama ko ko naan ba ca kanam ma ne ko ndax yaa ngi fay juuti mun ma déedéet commencé gu ma fay juuti pourtant ma nga lal lal bu rëy teg ca koko yu bari di jaay koko mille francs coco 700 coco 500 ngeen permettre ku muy liggéey sans fay juuti sans sécurité hein, euh, sans sans teg poubelle chez le gouvernement ndaw li dëkk ci réew mi do ci réew mi ngeen bañal ko loolu mais yéen pour lan maanaam dama gën xam le message c'est quoi le message c'est quoi manam buñ démé ba man dama yaakaar message bi finalement dafa am lu ci nekk na jeune yi ci réew mi dañ leen xoqatal ñu jël gaal yi dem ñuy jël ni Karagora gi dem comme ça ñun réew mi ñu fi des ñu mën ko def lu ñu neex en fait man je crois que c'est ça ñi nañ leen tëj ñi ñu xoqatal leen ñu jël ni Karagora ñi ñu xoqatal leen ñu jël gaali je pense en fin de compte c'est ça en fait le message quoi qui se cache derrière man daal je ne comprends plus ci kaw chef Talla mi nag laa dem ba mëntuma comprendre ce qui se passe dans ce pays naka ngeen di doxee naka ngeen bëgg lijjanti réew mi man daal xawma sax nan laa ko mën a ma sama mit sama douleur nan laa ko mën a manifester peut-être jël gaal gi dem wala ma jël yoonu Nicaragua gi wala ma génn taxaw ci buntu pale bee wala fenn euh, wax lu bon ñu ñu tëj ma ma noppalu quoi benn yoon man jan je ne comprends pas